maanaam liñ ci xam ne ci moom daal moo di njub te ak njub dara ëpp ci solo nit ki boo dee ànd ak moom tem amul njub man ngaa am ci moom yaakaar waaye nemeen neneen nu mal di mel nu dul noona sa yaakaar mën naa bañ a nekk ci moom fii la juddoo way juróom ak sama way jur ñoo daanañ fekkante bi loolee tax mu loolee nag mu xam fàttiwu ko ba saa yu fi jaaree dana jaar nemme ko xam na ne ñoo bokk lépp loolee itam nangu nañu waaye daal ñoo ngi ñaan li nga xamante ni bii moom ndax ak teb jaam amul dara lu dul sàkko itam lenn lu dul ñaan li ki muy ñaan mooy subhanahu wa taala ñoo ngi koy ñaanal suñu borom dimbale ko ci lim lim lim lim jublu xam nañ ci naan ak mu jub xamuñ ci leneen buñ ci xamoon leneen itam lu dul jub dañ ciy maandu rek. waaw man përi sëriñ Mbuub mi mooy président ni ma ko falee woon ci élection yi noonu laa ko fas yéenee falee nii ci présidentielle yi mu jàpp ñu jàpp am naa yaakaar ci moom bu baax ndax taalibe la doomi lax la. waa kër Serigne Bassirou la am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax a baax. dëgg la waaw ndax moom ba fi toogee deux ans la fi toog lu mu fi def gis nañ ko am ñu fi toog vingt ans defuñu fi dara Serigne bu daal la ñu def mooy sant ko gërëm ko ñu jéem a def dëkk bi dem ko def rafetal rafetal loolu lañ ci bëgg. jàppalante rek ànd ak Serigne boobu rek jéem jéem fexe mu gañe loolu lañ bëgg waaw te waxoon nañu day defar ñu arab yi na defar arab ñu arab mooy ñor na doon ñu arab yi ba muy laaj élection yi la wax dafa ñëw day defar arab yi jàppale ko ba mu jël ko kon nag nañ nañ jàppale fii defar nañu arrêt bi at mi jëm kanam loolu kese. ñu yoroon maire bi ñaata at lañ yore maire bi dara soppiku dara sensé wut mais sëriñ ba mu jëlee bi xam nañ ni ñaari at yi maire sensé na soo soxlawaan kayit boo ñëwee da ngay taxaw bay jooy. doo am kayit tey boo demee dañ na naan toogal nga toog ñu génneel la kayit nga dem te lool amu fi woon Kaolack dafa salte woon tilib xesaw sëriñ dindi lépp Kaolack yooyu kese woon man musuma ñemee toog suñu ëtt ndax ay yoo te fi mu ne damay tëdd suñu ëtt benn yoo du ma déranger kon sëriñ defar na defar na dañ koy ñaanal nag li bëgg ci réew mi yàlla na ko ko yàlla jox kon Kaolack moom beneen affaire lay doon loolu lañ koy ñaanal pare nañ pour jàppale sëriñ taxaw nañ takku nañ ba mel ni takku naanaa sëriñ rek lañ bëgg mu dem pale ba. maanaam ba fi bépp ko garant bi sampé bu lay kenn ku si nekk yaa ngi ñëw fii di gis sa bopp di góorgóorlu fii nag lañu ñuy suturloo fii lañ am. mais nag diñu sañoon comme suñ toos moo nekk fi am lu mu bëgg nag comme ñun ñuy borom verre borom jagataay ñun ñëpp dañuy ñëw booleel dooleel ko jàppale ko maanaam lépp lu mu supp nii ñu jéem a ñëw ñu ñëpp ñu réagir si jéem see jàpp comme ni ñoo nekk si bunt bi nii buntu Auchan bi tamit bëgg nañ waxtaan ak grand bi dañu jéem a wut boo xam ne benn côté doon arrêt boo xam ne dañu mën a toog di gis suñ bopp kenn ku si nekk comme ay borom kër ñëw fi ñëw kenn ku si nekk tamit mën a gis sa bopp loolu tamit ñu gis grand bi ko wax maanaam kàddu yooyu tamit ñu koy bàyyee pour mun ko dégg mu xam ne ay jeunes yoo xam ne lañ. kon mën nañu jàpp ne yéen sëriñ moo ko moom. lépp ñu ngi nii borom vélo man maay président gars yi ñi ñëpp dañ ciy jéem a bànkoo pour jàppale grand mu téye réew mi. dañ lay ñaanal nga jot ci réew mi ndax boo jotee ci réew mi sëriñ waxuma kaw Kaolack waaye mais Sénégal yëpp dinañ jotu ndax cœur de fii ñun ñu si ñu fi jiitu ci lañ bokk te fi ñëwee Euh, suñ mbokk yi dañ ne woon yéen sànni ngeen seen xaalis yéen seen xaalis da ngeen ko sànni ndax fii ngeen ñëw investir fii kenn nekku fi di ngeen am problème ñu gëm ko toog parce que boobu gis nañ vision bu ñu sëriñ bu war a yóbbu président sëriñ ñu topp ko tey y a des centaines personnes yoo am ne nii tey waxuma la jariñu mais jariñ nañ ci ay nit grâce à sëriñ bu te mi ngi fii ci biir kër bi tey waxuma la Kaolack waay mais Sénégal yëpp am nañ ñeewantal am nañ euh, maanaam bëgg nañoo ñëw inversir fi cœur de ville te lépp grâce à Serigne Mboup kon Serigne boo ñu nee boo jotee réew mi dig ñi dig ñi dimbali def loo xam ne nii waxuma la sénégalais yi mais lu am Europe sax dina fi am parce que wane nga ko